ma leer du ma ko la monsieur le président de la république waxal ak bi ak ministère bi askanu Sénégal sonn nañu mënoo dem def ay liste ci biir village yi di joxe bopp cinq kilos trois kilos dix kilos ñi nga xam ne ñi ñoom ay dealer lañu ak mën nañoo réewu làmmiñ nga fari cent cinquante tonnes jox ko pour mu waxal la lu baax loolu baaxul cim réew day delloo réew ginnaaw daaw nawet bi ni ci manqué looloo ko waral ndax liñ ni joxe nañ ko joxe ko ndax buñ ko joxee ci yi géej lañ ko joxee ay poste lañ ko def engrais bi ñuy wax suuf si dee na ak mu ne ñu génne engrais bi joxe nañ ko joxe wuñ ko ñu contrôler ñi nga xam ne ñooy opérateur yi bari na ñu ñu jox tey jii ni nañu joxe mille tonnes engrais amuñu cent tonnes am na ñu ñu jox cinq mille amuñu mille tonnes am na ñu ñu jox trois mille wala cinq mille tonnes yi gerte amuñu cinq cent tonnes am na ñu ñu jox ñebbe amuñu ñebbe loolu nag buñ ne dañ koy fóol ci suuf si mu ñor ñore dañuy daaneel réew mi loolu détournement d'objectif la monsieur le président de la république du ma masa nangu ñu continuer di ko def yéen opérateurs yi maa ngi leen di avertir kenn kuñ ci jox konta ay milliers de tonnes danaa ñëw ba ci yow ni la fan nga teg sa engrais fan la sa gerte ne fan la sa ñebbe ne boo ko amul danañ ko nangu jox ko keneen bàyyi leen tappale yi te liggéey ngir yàlla nit day dundee aw ñaxam Sénégal yi mënuñoo am junni ñuy jox suñuy million ñoo xam ne ñii jaay tappale rek ak aw neexu làmmiñ la kon niñ ko defee woon daaw dootuma ko nangu loolu dama bëgg mu leer nañ damaa bëgg mu leer du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg nañu bàyyi jiw yi ak baykat yi dem ci tool yi te ñu dimbali leen encadré leen fexe ba jiw yi àgg ci ñoom tappale yi bari na njuuj njaaj yi bari na maa ngi avertir ministre de l' agriculture ma directeur de l' agriculture directeur de cabinet xamal leen ne képp koo xam ne jox nañ la jiw ay dix tonnes vingt tonnes yokk semence te amoon tool damay porter plainte ministère bi ak état du Sénégal loolu dama bëgg mu leer nañ waxoon naa ko assemblée tey laa ci gën a taxaw te combat boobu duma ko bàyyi sama bakkan laa ci teg jox leen jiw yi baykat yi sonn nañu li ñuy joxe ci dund di ko dimbalee dañ ko jox ñi nga xam ne sonn nañu te bàyyi nax nit ñi riba day daaneelum réew économie réew tant nit ña fa nekk ci nit ñi nit ñi ñu ngi lekk riba di jënd kër yi ay milliards di ko yor jënd oto yi centaine de millions bàyyi nit ñi bu ñu añee du ñu reer président na xam ne ministère yi ñu ci bëree bëri da leen war a génne gouvernement ay sàcc lañu ay sàcc yu wér li ñu leen jox ñu koy bind ci kayit di tappale li ñuy wax lu dëgg boo leen woo pour ni audience ñu lañ loolu na dëkk réew mi ñoo ko bokk dañoo waxoon nit ñi danañu def gouvernance sobre et vertueuse gouvernance bi ma gis nag def ma tiital si par nañu mooy suñu bopp buñ bëggee ànd nañ ànd ci dëgg te bàyyi ànd ci keddoo keddoo ak ku la waxal lu neex rek nga jox ko alalu askan wi loolu daf see war a jub